ci xaritu téléspectateur GTV Global TV ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun guddi gu jot leen di au jeudi ñuy ànd ak yéen ci émission bi nga xamante ne dañu koy bàyyi xel ci biir réew mekk ci bitim réew rawatina ci canal 12 bu TNT by Excaf mais aussi ci canal 11 bu TV d'Orange di leen gërëm yéen ñi nga xamante ne actuellement yéen ñu bàyyi xel aussi ci bouquet canal plus bi ci canal 445 moo xam yow mi nga xamante ne yaa ngi fii ci Ndakaaru Ndiaye ak ko wër donc ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax ci ni ngeen ñu bàyyee xel aussi ci GTV ci YouTube bi ak ci Facebook bi Global TV Max foofu ngeen ñu seetaanee ca bitim réew donc ñu ngeen leen gërëm bu baax a baax ci ni ngeen ñu bàyyee xel di leen wax rek continuer leen di partager lien bi nga xamante ne moom moo di lien wu YouTube bi ak Facebook bi mais aussi page TikTok bi nga xamante ne moom moo di Global TV donc émission yi ngeen di gis yëpp. muy jaar ci antenne bi saa yu ngeen xëyee di ngeen gis ñu koy euh, partagé ci li nga xamante ne moom moo di sunu page TikTok di euh, Global TV donc di leen gërëm bu baax a baax ci ni ngeen ñi bàyyee xel waaye tam ni ngeen di toppee programme u GTV encore une fois ñu dellu si ak yéen ak euh, sunu beneen invité muy ndaanaan boo xamante ne tey ci wàllu rap fii ci Sénégal booy tudd hip hop fii ci Sénégal fexe na ba marqué empreinte am fexe na aussi ba def ay preuve tamit fexe na tey ba indi concept boo xamante ne ku ko dégg rek nga xam ne lii am na ku ko moom mais aussi indi style boo xamante ne bi mu ko indee Sénégal yëpp hmm, da leen jaaxaloon parce que jàppoon nañ ne rab lu fi waay def rek dangay def defaat parce que américain def na ñu ne ci rab mais moom bi mu ñëwee xam nañ ne ndekete nit ñi am nañu bopp am nañu xalaat am na yeneen façon ngi def yoo xamante ne ak yeneen ngi façon ngi style yoo xam mën nañ ko créer ci hip hop bi fii ci Sénégal te dool laal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di américains yi comme ni ñu koy wooyee kaana yi donc kooku nag tey moom mooy sunu invité di néew bi pour la deuxième fois quand mu ñëw ci émission guddi gi et c'est toujours un plaisir di ko recevoir suñu plateau parce que non seulement bu ñuy waxtaan ci wàllu hip fii ci Sénégal ak wàllu rap il conscient ci moom li nga xamante mu ngi koy wax ci rab bi di ko ci dund mais aussi côté li nga xamante moom mooy xew-xew réew mi aussi def ci ab ouverture bu am solo boo xamante ne ci lépp loo mun a waxtaan ak moom diñ ci am tontu leer yi nga xamante ne bëgg nga ko nga xam ne aussi mu ngi topp actualité réew mi ni réew mi tëddee donc loolu bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy wax éveil des consciences donc moom il est conscient de ça que mu ngi def hip hop mais ci biir hip hop bi muy def ci biir rab bi muy def def ci war dimbali ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy déglu donc tey moom mooy sunu invité di waajal nag aussi bis bu mag muy guddi goo xamante ne dinañ ci ñëw ci biir émission bi ce sera le 8 novembre incha allah foofu ca théâtre national Daniel Sorano Bamba Obama mu ngi ci plateau bi Awakan mu ngi ci plateau bi les mercredis de Awakan nga xamante ne c'est toujours un plaisir moom muy teew ci mercredi kontaan lool si ni muy teewee ci mercredi yi donc euh, mu ngi ci plateau bi euh, awa naka mu wala mun naa la <laughs> mun naa la libéré mun naa la bàyyi nga def nga continuer. amal maa ngi lay nuyu <laughs> maa ngi lay nuyu. <laughs> Eh, xam naa ne dinaa wax euh, ñi nga xam ne dañ naan Yves dafa lii dafa laa hmm. ñooñu il hmm. ma def vidéo wax leen kan mooy Yves ñu xam la benn yoon parce que dañ la xamul c'est des fois jikko bandi kolobaan bi day ñëw ma ko jàppee xam nga booy mais yow li nekk ci yow moo nekk ci man ah, boo tam booy parcelle nga kolobaan ak parcelle waaw kon dër la li nekk ci ma yéen ko jox yéen ma ko jox kon kay boo jàppee ma jàpp day metti de macha am jikko hmm. <laughs> jarul ree xam nga li ma wax da nga am jikko ju <laughs> li ma la xamal. en tout man booy Colobane laa. man booy parcelle 42 angle 43. parcelle laa Medina diggante Colobane fas Medina Gueule Tapée laa foowee doon dem Soumbédioune tool toolu bàyyi soogi boobu buggaan di tudd ñun waa Colobane xam nañ ko. parce que fa lañ daan fekk fàq maani lañ fa daan fekk fàq maani di toogandoo ak ñoom di lekkandoo ak ñoom jën. dama naan Grand Dakar Caaroy Pass. lenn rek lañ defoon mooy ay ay moo daawuñu moo ko ah, ah ah mooy yow yow bàyyi ma. naan dëgg day moo. da koo def ba bàyyi. ah yow kii. da def ba bàyyi. Ah, ah. ah bu amul sama kersa. mën naa ñam tuuti rek nag. doon essayer quoi. kon ji kon di nga xam. boo xool dose bi daal lay joxe quoi. est-ce que tey jëloo sax ndax sa bëri. waaw tey boo de boo demee de. tey daa mel ni jël naa tuuti de ah. xoolal bëri xoolal bëri. du bëtu sonn de. non léegi ala jomaay la. ala jomaay laa def ni Abdoulaye laa dajee léegi. mu ne ma léegi ala jomaay ngay def. donc ma tuddee ko Alla Diomaye rek noppalu ko. waaw moo tax ma tuddee Alla Diomaye et eh puis Diomaye ku ku ku mel ni moom da ngay da ngay kuul parce que nit ku baax la. waaw moom nit ku dal la ko waaw moom buñ la buñ la buñ la nee Alla Diomaye rek. mooy gis na ñu nit ku dal. nit ku am koo xamante ne ku am personnalité la. Mm-hmm. ba pare ku joxe cër la. joxe na cër surtout waaw loolu rek loolu rek moo ci ëpp solo. et eh puis sama mbokk taalibe la. nañ ko waxte dee. waaw ñoo bokk fa ñuy ah fa ñuy rootee. ah gis naa ko ci waa Kër Baay Ñas de chaque année dañ ko daan tuddee. Mhm. seen guddi gu mag foofu ca Fatick. mu daan teew. donc mun nañ jàpp ne ay mbokk taalibe ñu rek. voilà même bu dul même bu fekkee ah, wóoruma. xam naa daal jox na cër waa Kër Baay Ñas mhm. loolu moom wóor na ma. Mhm. waaw damay bañ xëy dagg vidéo bi ne Yves nee na jomaay <laughs> taalibe Baay la. <laughs> siyaar sëriñ bi. émission na trop. waaw ah non moom ba moom moom moom ba mu ñëw bële zéro faute. zéro ah, gisoo ci ci campagne bii nii nu mu maandoo. dafa noppi waaw. bu doon ñi fi nekkoon ba léegi da ngay xam ne kii fi nekkoon am na fu mu fu mais moom mu ngi maandu maanoom quoi mm-hmm. mm-hmm. te loolu ça c'est bien ci président beneen ère bu ñu nekk am na solo waaye mm-hmm. macha allah awa nuyu naa la amal sama kersa tuuti salaamaaleykum <laughs> téléspectateur GTV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen mm. jaajëfal. am mbégte jàkkaarloog yéen eh, ci seen émission guddi gi saa su ne. Mm-hmm. chaque mercredi comme moom xaj na ma yeneen jours waaye yàlla baax na yàlla mm-hmm. waxul kenn dara. Mm-hmm. yaa ngi dugalal sa bopp de sama kersa. yaa ngi bopp de man eh, pare woon naa ci boobu de. balaa may leeral li tax ngay ñëw mercredi. Eh. <laughs> pare woon naa ci wax ji de yaa ci waxaat euh, maa ngi lay nuyu bu baax invité mm-hmm. bi di la ziar di la jaajëfal bu baax mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp Yvonne mm-hmm. maa ngi lay nuyu ma sœur bu baax a baax di nuyu waa Parcelles Assainies yëpp di seet yi nga xamante ne ñoo nekk ci hôpital yi di leen ñaanal yàlla fëgg seen bopp ñu di seen yitte waaye di ñaanal ñi nga xamante tamit ñoom la caabi féete ginnaaw euh, yàlla génne leen fa ñu dellu ñoo métti ci seen yitte macha allah di seet tamit ñi feebar nekk ci biir kër yi di nuyu kilifa diine yi kilifa aada di nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp. macha allah jërëjëf Bamba. futur député waaw. futur député amin Xaasim dafa demoon voyage. kon duñ ah, naan kafe waaw ah, tey moom nañ ko muñ rek te yàlla tax. <laughs> Dijé maa ngi mhm. di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di fu mhm. mhm. nga may ko tuuti mercredi bi mu noppalaku parce que xam naa ne day sonn Bamba <laughs> yool waaw ah, ci dugg quoi. xam na lu tax. Ah. yoo rek baax ok ok. <laughs> moom bu ma may sax dama koy jël. Ah, na di nuyu suñu Baye Fall bi maanaam Baye Fall man tur bi laa rek la wax sax. néew bi. tey ñu ñu ci interpellé dafa bëri ko bul dem boo def tey ku tudd néew bi boo demee dem nga. <laughs> Fall man tur bi daal xam naa ne kéemaan la ah. xam naa nañ ci waxtaan ci kalam quoi ah. incha allah nañ ci waxtaan ci kalam ah, di nuyu waa régie sama gars yi mm-hmm. di nuyu euh, waa jëppal Kaso Dexle mm-hmm. di nuyu sama grand yi ma toogaloon léegi. da wax Yves mu ñuy gaaw a yónnee lien bi. waaw muy gaaw a dugg quoi wax nga ngi toog ci ne yore sa téléphone. ah ñoom ci téléphone lañ koy xoolee dafa tàng ñu toog ci buntu kër gi ku ne yore sa téléphone. waaw di nuyu ñoom Ousmane si Maguette Niang Fashida di nuyu Baye Mor sama grand yi ñoom laa toogaloon léegi. Mhm. Euh, lien bee ngi ñëw léegi ci kanam incha allah di nuyu waa Sénégal di naan asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu aussi Dev clinique Croix Bleue. ku baax. waaw nit ku baax parce que fanee pass bi ñu fa doon dem. Mhm. da xam ne kii. xam na ne man xarit Obama laa quoi. donc voilà day jaabante xam nga dugg ci bureau yi. dama na kaay koy nuyu bu baax a baax ba ak waa clinique bi yëpp. clinique Croix Bleue Croix Bleue yëpp. Ah allah. moo tax xam nga booy Colobane nga man booy Cap Skirring waaw et puis man daan naa ñëw jëppal di fa doxaan si aussi sa koñ boobu. TK vidéo koñ boobu noonu. daan naa fa sarale. et xam nga fa sama goro yi ñoo fa dëkk ñoom kan. ñoom kii Mbengue ñoom Bichette. Bichette sama sama sama sama sama. xam nga Bichette sama sama sama jëkkëru sœur mooy grand frère Amadou Mbengue. lay wax ni. waaw parce que dëj papam gis naa la fa. voilà moo taxoon ma ñëw ci dëj bi et bi foofu même bu dul loolu naa fa ñëw. pap ah ay ay quatre vingt euh, ay quatre quinze seize ya daan naa fa ñëw. sama ko as ah, ay ko ñoom Bichette di leen seet si la famille. Ah, daan naa fa ñëw ak pap ah bon Pape frère bi. ah bon waaw ah, Pape Benti. Pape Benti Bichette Pape fa ñëw di ko. seet mag la sama cousin. ok si. Pape jantal grand koy jaale ndeysaan. waay daa ko naan naan ko yàlla xaaral jëna. amiin amiin waay daa ngi jantal grand quoi jantal nit ku baaxoon yàlla ko yàlla xaaral mm-hmm. mm-hmm. di jaale Bichette bu baax di jaale yaayam. Mm-hmm. foofu sama famille quoi. ah oui mais it boo duggee Sicap. dugg sama koñ jëppal Tekka Video dafa am lu muy tekki ci jëppal. la lay tekki foofu. dafa kat. ok mooy grand bi fa nekkoon. moo fa nekkoon jamonoy kaset. te amul ah. waykat bu fa tegul tànkam. ok ma jox la benn anecdote ci loolu. muy Youssou Ndour muy hmm. Oma Pen temps yooyu kaset. moo am moo xewoon TK waaw. TK ñu nekkee xale da nga dem. fa lañ naan ji. da nga naan dem di loué. kaset Sénégal neexatul quoi. waay boo si naan bëgg saan. VCD VCD. temps yooyu après. Tafa 300 lañ ko daal loué. merci mu demee la fa bàyyi Fallou. ok dafa voyagé ah. Fallou moo ngi Belgique moom moo voyagé Tafa mooy fii ah, mu ngi fii. Tafa mooy fii ok ma jox la benn anecdote bu gaaw. Mhm. ci sama diggante ak Tafa boobu nga wax nii. Tafa kan Tafa kan. en 98. Mhm. jàpp 2003. Mhm. maa ngi def mécanique. maa nekkoon gendarmerie Colobane. di def mécanique moto. ak oto. donc sama benn xarit ki ma tuddee sama taaw. Maxtaar Ñaa. seen kër. falaa daan nekk chaque jour su ma liggéeyulee wala su ma liggéey ba pause falaa dem toog ba 15 heures ma ñibbi mhm. ma ma gontu mhm. gendarmerie Colobane mhm. bon xam nga sunu kër mu ngi Colobane mais xam nga xarit am nga fu ngeen toll donc daaw ma sa lekkee sunu kër moom seen kër laa daan dem fa lekkee moo tax ma tuddee ko sama doom parce que ñoo doon toog benn banc école ma ne ko doom bu ma njëkk am muy góor yow laa koy tuddee oh, bi ma amee doom ñu ma tuddee ko sa papa ma leen tuddeewu ma ko sama baatu démb mooy sama baatu tey sama xarit laa koy tuddee léegi benn jour tafaakan ñoo doon animé benn mariage ci kër gi foofu ñu dëkkoon ci kaw mhm. mais comme que ñu mataa dafa amoon boo duggee ci ginnaaw espace mhm. donc fa lañ def bâche bi mhm. falaa fekk tafaa bon maa ngi sol tenue mécanique ah ñëw fekk muy branché comme bu yàgg bëgg affaire animation mu ñëw jàppale ko muy branché ma gis grand bu civilisé nag ah, correct maanaam doo gis sax fil buy lang lépp da koy escorché ci weñ bi bâche bi doo gis luy taxawaalu ma demee grand bi dafa ma neex quoi ba ñëw ci moom wax grand yow ni ngay animé dafa ma neex parce que da nga da nga ni mu koy rangelee lépp correct ma ñëw ma ne ko man dama bëgg affaire animation quoi mu ma ma ne ko in ma ataayal maa ngi ut benn benn benn link quoi ak ma dem jënd baraada bi indi baraada ut wargaa ñëw teg ñuy ataaye muy dem dama damay bouger xaaral ma am lu ma récupéré ji xaw nga miin ay table de mixage table table table pyramide la woon. Mhm. ma table ah, sept piste yi. ma ne ko si xam na mu ne min nga ay cassette ma ne ko si. mu ne ma kon bu bii jeexee nga play bii yëkkati bii wàccee bii. ak sa tenue ak sama tenue mu dem bàyyi ma fa. <laughs> mais ne boobu Youssou Ndour moo génne woon album réew mi. bul ko teg misère temps yi la génn. Ah. mais animé ba grand bi ñëw na mais booy yaa ngi gérer ah. ah. ma ne ko non am na ma ko lii dama cee juddu. sama kër xam nga ay grand nekk fa mm-hmm. bëgg affaire mm-hmm. animation. Mm-hmm. loolu 2003 la woon. Mhm. loolu ma wax nii 2003 laa bàyyi mécanique. waaw 2004 ma dugg ci rajo. 2005 mhm. ma dem Walfadjri. Mhm. di def sàpp dëggin. 2006. am benn événement bu xew cité Bastos. Bastos benn castor bi noonu. ci ci à gauche côté Walfadjri. grand gi CPN bii tey mun na ma seede. Euh, Rokhaya bi joué madame Brouillette moo xewle woon benn événement ministre de la jeunesse au temps de Wade Mamadou Lamine Keita waroon ñëw foofu ñu ku présenté affaire bi ci sërëb si basos bi ci terrain football basos bi gisee woo ma ne ma dama boole sama benn sër dafa événement bëggoon naa nga présentel ko ko ma ne ko moom benn problème mu la première fois mu présenté lu mel noonu quoi mhm. événement bu rëyee noonu mhm. ma ñëw fekk tafaakan boobu man bi ma fekkoon man kër ñoom sama xarit bi sol tenue moom mu yor sono bi moom. xàmmeetu la fenn xàmmeewu ma déedéet mun la xàmme mais yaa ngi wax lu doy waar. anecdote ma ñëw nuyu ko. Mhm. man xàmme naa parce xam nga ak wat bii. li mu doon wootoo da nga koy xàmme xam nga xale du fàtte. xale du fàtte ma ñëw nuyu ko grand mu demee ça va mu ne ma ça va booy naka mu cool ma ne ko ça va man maa war a présenter événement bi dama bëggoon xool micro bi quoi ndax ça va. mu mhm. ne ma ok léegi xaar mu branché ma ma def test micro par tegaat ñëw toog ci wetam. ba léegi xamee wu la. ba léegi xamee wu ma ma ne ko grand naka def man ça va ma ne ko xàmmee nga ma mu ne ma non fan yow fan noonu jëppal ma ne ko du jëppal de. Mhm. ma ñëwaat ci histoire bële. non day mu ne ma c'est pas possible. <laughs> yow booy yow mécanicien booy. donc pour la ne. àddina àdduna lu ne am na. àddina waaw moo tax nay rafet rek. dafa am solo. waaw ñuy rafetal rek ko seeti moo ngi ci allé allé Babacar mu ngi fa mu ngi mu ngi foofu ba léegi. wala bi benn multi service. non il faut ma seeti ko il seeti ko. dem jox ko àllarba quoi. <laughs> ko àllarba. <laughs> macha allah. <laughs> macha kontaan nañu néew bi. ah àdduna mooy li lépp rafet. waaw rafet boobu mu rafet bi ngay ñëw yaa deux ci émission bi. Mhm. moo leen nuyuwaat tey naturellement nga ñëwaat. waaw waaw waaw ñu ngi lay fay. Mhm. xam nga di nuyu ñi ma jàpp bokkal plateau bi. Mhm. Cheikh Bamba ñu ngi lay ziar. sama yaay boobu itam maa ngi koy nuyu di ko ziar. di nuyu ñi ma àndal ñoom maam Ousmane sëñ Basiru ñaari Basiru yi te ñaari Basiru yi laa àndal. di nuyu sama yaay boobu bi ma jàkkaar lool di nuyu sénégalais yëpp. xam nga di leen ñaanal jàmm di sàkku si ñoom ñaan tamit. Mm-hmm. waaw kontaan tamit ci lu ma ñëw fii Global TV. Mm-hmm. waaw allah jaajëf mm-hmm. kontaan nañu dinañ ñëw ci sa événement bi le 8 novembre. incha allah ndax yaa ngi koy waajal. mu nekk sa première sortie ah officiel après sa album après maladie bi après absence bi sénégalais aussi war la soutenir quand waaw waaw ah, tey émission bi euh, émission de soutien laa koy tuddee cest dama bëgg tey sénégalais yi seetaan Euh, tàmbalee ko ci les autorités ñu soutenir la parce que soxla nga ko fi nga toll nii ndax da nga nekk di relancer waat sa carrière officiellement ah, ah. te ci événement bi lañu koy relancer mm-hmm. waaw waaw waaw surtout surtout parce que comme lu may faral di wax rek mm-hmm. euh, ñun artistes yi mm-hmm. euh, que ce soit muy kiy def rap kuy def mbalax kiy def théâtre ñeneen ak ñeneen à chaque fois day am yenn yoo xamante ni day am ngay ngay gis sénégalais yi seen seen xol bu rafet mm-hmm. sa se comprendre dañuy wax kii ñoo xam ne ñu ngi ko doon gis mu ñuy mm-hmm. bégal wala mu ñuy conscientiser wala lii mm-hmm. wala laa et sa comprendre nga ah, warul woon nekk ci situation yi léegi nag situation situation yooyu lu koy indi yu ko yu yu ko mën a arrêté comme yii nii si la bokk mooy maanaam buñ tegee dara ñëw nga lu mu la wax nga ñëw jàpp ci ci ci liñ teg parce que loolu lañ am organiser ay concert organiser mhm. ay soirée mhm. xam nga mhm. def yooyu génne ay album xam nga gars yi gars yi jàpp si bu ko defee après au lieu que ñun ñu ñuy dimbali ñun ñooy dem di dimbali waate c'est comprendre nga euh, euh, ministère la culture tamit maa ngi leen di euh, gërëmaale xam nga jàpp nañ ci ci ci bés bi bu baax ñoom tamit ñu jéem a fexe loolu ñu am benn kii boo xam ne dañ koy tegee boor pour loolu kese maanaam artiste commission bu chargé wu loolu waaw dañuy am voilà parce que à chaque fois day kii quoi. Mhm. da ngay gis ñoo xamante ni seen xol day da ciy jeex quoi. que kii moom a doon bégal wala affaire da ngay gis ay nit dal lay woo. nu ñuy waxee nii dangay xam mhm. nii xam nga. mooy loolu quoi. mais comme genre yi moom mooy occasion yi. te mhm. ku xam néew bi ñi nga xamante ni yàgg nañ ma suivre xam na nañ ma si côté spectacle affaire yooyu. boo ñëwee da am da am dara quoi. yaay fàttaliku sa sa dernier spectacle ak fan la woon. sama dernier di nga def. ak néew bi quoi. ak néew bi. bi nga mujjee def ko boo xamante ne yow spectacle bi dalay ramener ci sa bi nga jëm le 8 novembre bi nii. nga ne mm. waaw ça fait presque. ok su may su may joxee kii bi. damay wax tournée al sama day Youssou Ndour. Mm. stade Caroline Faye bu mbuur lu ma fa defoon. ok lu ko raw laa nar def fii. ok mm. pour ñu demoon concert boobu. non non bi moom obama dañuy dem ah. <laughs> parce la. donc vendredi voilà. il faut que du ngeen ko réccu di woo waa waa Grand Médine surtout sama sama quartier. d'accord dinañ ci dinañ ci ñëw ci biir émission bi incha allah. Mm, mm, mm. di conscientiser waat ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci campagne bi rek au moment. parce que Sénégal euh, gisaat nañu su ay attaque yoo xamante ne pour man war na mën a ñàkk daal. y un un mort oui maanaam moo boo am ci caravane Sonko bi. Mm-hmm. un jeune. di ko jaalawaale. kon dem loolu la wala attaque la accident la bi comme moo. ok di ko jaale ah. di ko jaale kon mm-hmm. démb nu ñu jaale monsieur euh, fii guddi gi amul papa. ah oui bien sûr waay. da ko jaale ce jeune là parce que benn jeune bu dee rek perte la pour Sénégal ah ah waaw di ñaanaa di ñaaxaat politiciens yi parce mhm. li may wax démb laay waxaat tey mhm. ñoom ils sont en sécurité am benn ay vingt ponkal yu leen wër oto yi ñuy baax na mhm. mais jeunesse jeunesse bi topp seen ginnaaw est-ce que ñoo ngi sauve jeunesse boobu parce que xoolal bu attaque amee dañ naan coppet coppet lañ koy ko évacuer ko waay mais jeunesse bi nekk ci ginnaaw amul ku leen lu leen di évacuer tey ponkal ah oui te dañuy dajale artère dafa xat. ah oui commencé nañu wàcc Dakar ñoom. commencé nañu wàcc. oui dafa xat. oui maa ngi koy wax di lancer un appel à son excellence. Mhm. état jóg. Mhm. président joxe ordre. oui ne caravane bii bi nii lay jaar. Mhm. itinéraire bi nii lay jaar parce que Yves bu ko raayante. oui Barth bu dajeex Sonko day métti. waaw il faut waay. ay xale lañ seen dara day tàng. oui Barth tel qu'on le connaît. Sonko waxu ko neexul Sonko def nii booy. mais boobaa le pire va se mais ci ci ci ci bii nii la ñu war a wane leneen lu ñu leen xaareewul nag. gaw ma ko parce que dafa am lu jóg war na war na mën a nekk non non dafa am lu jóg ba après tout ay nit la ñu ah pour man war war nañ mën a xaar dara ci ñoom ñu indi leneen xam nga lu tax mënul nekk mhm. dañoo tolloo mhm. teg dafa am lu tuuru lu bari mhm. gis nga li ma wax gars yi Macky Sall lu ko Sonko mënti wax du ko ci topp mais Sonko bu ko parti waxee dara da ko ci topp affaire de jeune la affaire de boy la affaire de xale la affaire de morom la dafa am politique boo xamante ne élégance boobu. du nekk mm. ci ñoom. parce que ki dana naan doom a gën a nekk giri. Mm-hmm. ñi ñi leen topp ñoo leen sonal nag. mais moo too del ginnaaw. ñi leen topp ñoo leen sonal. daa am na bu ko Sonko bëggoon Barth bëgg ko. bu ñu xaatee ñi na glace. saa waay na glace <laughs> <laughs> te loolu ñaar ñëpp dee ko gënal. dëgg la de tey benn bugaan bu génnee nga ne ko bugaan non jëndal glace. andil diplomatie yi andil lii andil lii ñi ko wër dañ ko ne bugaan jënd na glace kaso bee tax mu ruux esprit boobu mu nekk ci ñii. Mhm. c' est des jeunes politiciens. oui foog gars yi comprendre ne. Mhm. dafa am niveau boo xamante ne niveau politique. Mhm. bu gars yi tolloon dafa sori. mais ñii niveau bi ñu toll nii. ñoo ngi doog a dugg ci politique. ñoom ñëpp tel dafa am loo xamante ne affront bu ñu duggee ci politique mooy garsa garsa. te dafa am niveau boo xamante ne Amadou Ba àdduna du yàgg mukk. ba mu wàcc ba nga non du ko def. sànq balaa ma ñëw j'ai suivi Alioune Sall. Mhm. ak lu ko am na niveau am tey Alioune Sall parce que politique am ay classes. Mhm. dafa am ay niveau mhm. am ay escalier. Bougane. Sonko. Barth. ñoo tollu niveau. tey benn dégg nag. ñoo tollu niveau tey Bamba Fall euh, ma ci nuyuwaale Yvonne. boo xam ne xonq na day na cuur. il a le tey nag lu may tiit ci Sénégal classe politique bu mag bi. Mhm. Moustapha Niass. Mhm. Dansokho. Mhm. ñooñu ñoo ngi dem. waay tey Khalifa Sall boo ko taw tiimoon nii saako du la dara. oui niveau boobu boobu la toll ci kaw bi mais tey lii dem ci Barth. dem ci Bougane. wàcc dem ci Sonko. te xool suñu président. du wax. yàllaa ko dimbali moom. loolu ndimbal suñu borom la dimbali suñu borom la waay. mais tey Ousmane. boo xoo gimbaxee. da la koy gimbax du bàyyi waaw. da la koy gimbax. da la koy gimbax. day defante. en tout cas daal euh, war nañu sóoraale population bi. surtout ak euh, jeunesse bi aussi. parce que 83 morts yi amoon après fourage kenn waxaatu ci. Mhm. dafa bokk ak samay ay xarit daayira. ci mhm. sànq rek ñu ngi koy dugal suñu benn. waa Dakar la wala. Dakar si. mi ngi bokk ñu ko koy ñaanal moom tamit Baye Fall la. Mhm. Euh, taalibe sëriñ Touba la ñu ngi koy jaale ñëpp ndax dañu bokk daayira. macha allah wax dëgg yàlla. Euh, maa ngi koy jaale ñoom màgget ñoom ñëpp. ndax sànq ba tey ñu ngi koy méttitlu. te xale la jeune xëy na yàlla moo ne bakkanam foofu. dëgg rek ñu koy jaale waa Sénégal yëpp. ak waa àdduna waa parce que nag ah. accident bu métti la. bu metti la. ci mhm. Mbàkke bu metti la di ko jaale mhm. waa Touba ak waa Mbàkke yëpp. Mhm. perte la ok bi attaque bi la. bi la ok bokkul accident bi ok hmm. ok. en tout cas daal li Bamba wax rek. neer les les nerfs sont tendus. trop hmm. il faut nag euh, ñi nga xam ne man pour man nag Bamba est-ce que kilifa yu mag yi. anciens politiciens est-ce que duñu génn di wax. non ñi yu bees yi du leen déglu. bu ñu waxee ñu saaga leen. beneen saaga. waaw ah mais mais buñ ci waxul dina doy waar. de parce que pour man kilifa diine yi ñoo ci gën a yeyoo sax. Eh, dañu téye seen bopp dañu téye seen parce que tamit ñoo yey de. non ah. mais mais am na fu ñuy toll aussi. gis nga yonent bi salaay salaam bi mu ko wóore ne su waxee am ay noon yu génn daal ci kawam dafa génn wax. mais xam nga Yves toujours li nga wax yonent bi dafa am koo ko toppandoo. Mm-hmm. xëddee ñetti tàndam. Mm-hmm. 10 heures la dox. Mm-hmm. ñun du ñu ay yonent yu yonent bu noonu tëkku. Mhm. sallallahu taala wa sallam. nit yi tey mu ñu ko tëkku. Mhm. mais pourtant si da baax Malick bu réew mi mosaan toll fi jaxasoo lool day wax woolee ma rajo bi ma wax ak waa réew mi. xam nga Yves jamono yooyu ak bokkatul de ak ay ak ak ñoo xamante ne ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo maase. ñoo xamante ne de seen jamono boobu war nañ mën a. def li mu doon def. mais Yves 2021 sëriñ yi génn wuñu woon wax te foofu la moor yi gënoon bëri. te pourtant maara yu bëri génnoon nañu wax. te pas affaire moor. waaw c'est-à-dire defal sa eh. au moins ëllëg duñ da ngeen noppi woon kenn waxu ci woon. waaw ah, xam nga réseaux am. Mm-hmm. kilifa bu doogee ci réseaux sociaux wax ñu doog ko TikTok. Mm-hmm. kilifa amay taalibe amay mm-hmm. am ginnaaw bu diis. booy di ko saaga ci réseau yi est-ce na ci xol. neexul mais xam nga euh, Bamba. sa doom bu leen ne Pape bul génnati. doo génn neexul xam nga neexul xam nga neexul. mais tey dafa am ñoo xamante ne ñu ngi leen di déglu ñoom. xam nga boo jàppee ne kenn déglootu leen rek. yaa problème yaa problème. am ñu leen di déglu. am na ñu leen am na ñoo xamante ne tey bu kilifa génnee war dañ koy déglu jàpp ko ne ok comme kilifa bi wax na bàyyi naa. parce que damay faral di wax gis nga ñiy wax lu ñaaw. Mm-hmm. ils sont minoritaires. Mm-hmm. ñiy wax lu baax ñoo ëpp fuuf. mais ñi wax lu baax bu ñu noppee ñi wax lu ñaaw seen wax mooy gën a fës. pour man loolu la. na yi génn nga xool ñi wax lu baax. na ñu génn di wax dañuy muur lu bon li. côté boobu laay waxee. te fu mu toll nga wax pour ñu saaga la. parce que Cheikh Maay wax na ko nee na maa ngi wax xam naa ne dañu ma saaga. waaye li ma bëgg wax dinaa ko wax. ñiy wax ñu baax kenn déglootu leen ay saaga ñiy def lu bon nag la ñuy tagee di leen wax bravo leen may ay doy na waar néew bi. Mhm. noo noo jàngatee actuellement actualité politique bi. actualité politique bi bon man ah, fii buñ fi buñ fi tolloo. Mhm. su ma si média wala affaire yooyu. Mhm. politique sànq rek ñu ngi doon waxtaan ci politique bi su ma toogee ak sama gars yi. bu ñu kiiwee si politique rek la ñuy wax quoi. mais si moment bii nii. man dama préféré. comme ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ci politique bi ñu nekk si seen moment. ñoo war a wàcc dagaan baatu askan bi mm-hmm. ku nekk wax que ni man fii laa leen jëmee wala lii laa leen namal lii laa leen kiiwal mm-hmm. instant bi dama leen di bàyyi ak loolu mm-hmm. pour le pour le moment su may wax xanaa askan bi laay waxal que ni buñ nekkee ci élection nañu nañu nañu nañu nañu xam ni lii nii lenn la day jàll comme yeneen ak yeneen yu fi jàll yëpp est-ce que comprendre nga. ku ci mhm. ñaawoo wala beneen affaire tamit après lii lay jàll. Mhm. ñu bàyyi ci xel. Mhm. ñu xam ne ñun ñoo bokk quoi ay sénégalais lañ. ñu ñu jël en tege ko fee ñu dund amour man chaque fois dama koy wax. Sénégal ñu ngi lijjanti ay solution benn solution moo mën a régler Sénégal mooy amour. entre ñun ñu fexe ba delloo si ko ñi ñuy woowee ay borom xam-xam ay intellectuel ñoom nañ jéem a fexe naka la ñuy def ba amour boobu dellu si i sa comprendre nga xam naa ne nag tam du yomb du yomb comme sànq gars yi dañ dem ba dañuy wax ragal wax ñu saaga leen. Mhm. mais loolu dafa am lu ko togg démb. Mhm. booy di saaga tëbuñu rek ñëw di saaga. oui sa comprendre nga. Mhm. dañu judd nekk ay xale. da da judd màgg ci benn entourage boo xamante ni. ñoom ñagaluñ leen ko. oui yi ñuy wax nii. luñ leen wax da leen di tooñ. ñagaluñ leen seen entourage quoi. que ce soit lu leen wër lépp. nekkul da leen di da leen di da leen di orienté ci ci ci benn voix. Mhm. xam lu mu lax bu mhm. baax da leen di da leen di réeral. Mhm. boo jëlee musique bi ñuy def ñun. boo jëlee théâtre bi boo jëlee li leen wër lépp amul dara lu leen di jàngal dara amul dara lu leen di fàttali seen bopp amul dara lu leen di wan nii dañu bëgg euh, war a bëgg seen dëkk amul dara lu leen wan ni dañu war a bëgg seen prochain xanaa ay defante ay def lii ay def lii mais yii bu amee maanaam boo bu bu nit yi di defante bis bu ñu dajee tamit defante mhm. defante yi jóge ci kër yi instant bi mooy dajewaat ci ci mbedd mi yow boo boo boo boo jógee nga def sa caravane mhm. nga ni okee damay def caravane jàmm du mhm. xuloo duma ma xeex kee def caravane am ñu ne duñu xuloo duñu xeex ci biir caravane bi am na ay defantekat yoo xamante ni seen kër yi xuloo xeex lañ fa nekkee seen kër yi ñu nekk sax kenn du fa juboo buñ taseeg ñeneen noo def ñu jéem leen tooñ ak affaire yooyu ay benn benn la comme ni nga koy waxee ci askan bi te ci kër yi la toggoo affaire yi foog ñu delloowaat mbir yi ci base bu ñu génnee ci élection yi. Mhm. man dinaa mën a def ay débat mhm. ak ay politiciens wala affaire yooyu wax sama xalaat si dëkk bi. Mhm. wax dëkk bi ba mu doxee fii ba fii lii laa fi gis lii laa fi gis. mais actuellement moom askan bi rek laa mën a waxal. ñu xam ni xam nga lii nii day romb quoi ay élection la comme élection yu fi romb. que ce soit ay nit dee que ce soit ay nit bañ a dee lu mënti demee day romb comme day romb nag jarul ñaaw quoi mhm. i sa comprendre nga mhm. gars yi delawaat seen xel ci yàlla parce que loolu mooy solution bu ñu mhm. xalaatul loolu rek après ku nekk day def je m'en ku nekk day def lu la neex i sa comprendre nga tey ñun ñi nga xamante ne ñun ñu la yàlla dénk ñuy wax si micro yi dañu war a wax jàmm di def jàmm di bañ a xam nga indi bëggante quoi. débat boobu teg ko si table bi. mais tant que lii lañuy def dañuy bàyyi ba dara am Sénégal chaque fois loolu la. Mhm. bu accident gëjee am seen yoon nekkul ci tali bi. waaw. ñu ngi nekk fee doog ci jóg quoi. mbër yi mhm. joueur yi. Mhm. karang karang karang ba accident am ay nit dee ñu ne waaw accident bi. na la ñuy def wut ay solution. karang karang karang buñ toogaatee accident amul ñu bàyyiwaat. ñu jékki-jékki élection ñëw kenn xaañ moromam ñu ne waaw violence bi mais du loolu mhm. affaire yi da nga koy wax ci jàmm même kër loolu lañ koy réglé mhm. dans les moments de paix mhm. la ñuy waxtaan ni ah Yves kat keroog moom lii wag nii nii nii mais beneen yoon del def lii bu lii mhm. amee dee ma woo kilifa nga may kii pourtant kilifa yi même si politique bi mën nañ koy defante mhm. te sa comprendre nga indi affaire yi waxtaan teg parce que mhm. waxtaan mooy indi wóolante yow boo dencee di foog man ma denc di foog man ma lay xalaatal yow nga may xalaatal mais lu gaaw rek daf ñuy boole mais bu fekkee dinañ dinañuy waxtaan man ak yow di nga xam amour bu dox sama diggante ak yow quoi parce que dina génn rek ah lu may foog moom nekk loolu la day rataxal diggante bi nit ñi buñ bëggantee du ñu xaañante boo gisee ñuy xaañante bëggante wu léegi nag loolu waral ñàkk bëggante boobu loolu lañ war a saafara mhm. mais pour mu saafara wu mhm. comme nuñ ko defee ba mu yàqu mhm. noon gi fi noonoo gi fi am théâtre kat yi ñoo ko fi indi waykat yi noon noonu dopp nañ ko sopp def ko mbëggeel nga xool nga xoolal mbëggeel xale bu jigéen bi moomay raay moom bëggante suñu biir ko quoi ok su comprendre nga nit ak ay mbokkam nit ak waa koñam xam la mu lax ñuy mhm. bëggante di xoola solution bi loolu kese la mhm. agression bi loolu moo koy dindi chaque mhm. fois dama koy wax man ci banlieue bi laa dëkk xam naa nar naka la ay nit yu baax yoo xamante ne nar ñu woon nekk agresseur di nekkee agresseur c'est comprendre que instant bii nii boo jëloon sax ñiy sàcc ñëpp ñu jàpp ni la ñoo sàcc ñëpp nga tegee leen boor wallahi di nga jël ñu bëri ñoo xam ne seen jikko nekkul sax sàcc dëgg la waay seen jikko nekkul sax sàcc mhm. Mhm. mais parfois ñàkk dimbalante bi ñàkk kii yi day mhm. dem ba nit ki foog moroomu nitam noonam te loolu buy buy dem rek du dem du baax mais daal euh, si li may tënkee ci loolu mooy ñuy lijjanti mbir yi balaa mooy xew ñuy bàyyi ba ba bañ a bàyyi ba mbir xew ñu koy doog a lijjanti Sénégal ci loolu lañ nekk bu dara xewul dañuy fecc way suus suusa gis nga léegi luy yàq àdduna bi ay suuf suuf affaire yooyu sax. Mhm. def naa ci benn son léegi loolu day yàq àdduna bi de. Mhm. mais ñëpp moom la ñuy promouvoir di ko foowee waay ñëpp. Mhm. ay toj sa mbaar yi mu naan tës tës loolu. Euh, procureur yi di autosaisir. bu ñu bu ñu ci xamoon man li ma ci xam. dañuy autosaisir jàpp ñi ko way ñëpp. tëj leen ci kaso bi. parce que xamuñ ñoom ñëpp. te zaaru zaaru yooyu ñoom. bon xamuñu sax lu ñuy def. billaahi ñun hmm? eh, eh, eh. waaw boobu dafa ñëwaat. dafa am maire yoo xam ne ba léegi doyalu ñoom ñoo ko indiwaat après booy yu for ko. waaw non non dëgg la. ba pare ay kilifa ñooy taxawaat di ko di ko di ko kii quoi di ko fàtte woon nañ ko